Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous des like, merci de vous des abonnés, merci également du bail, du commentaire, un plaisir renouvelé gars, chaque fois de partager Gaël l'information. Hein, mbokk Sénégal il fait fële mënti 14 régions du Sénégal àdduna woon ngeen këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci l'hôpital hôpital yi de kër yi tëddi feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñu nekk ci kaso yi nga xam également erreur judiciaire ak jinjële ñu defa moo leen fa yëpp suñu borom génn leen fa delluwaat de seen i njaboot ñu dëddu àdduna suñu borom xare leen àjjana fi daw si Gaël te yéexee on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continu actualité gars, Gaël ñu fas yéene waxtaane li nga xam nag donc mauvaise nouvelle euh, Kidi dit Youssouf Sabali indisponible pour deux matchs L'Olani de ñu à également bonne perspective la par rapport également qui remplace Youssouf Sabali lors de mais d'abord également souhaiter joyeux anniversaire à Pape Matar qui fête aujourd'hui ses 19 ans le joueur donc de Chess le fils de Sida le joueur de Tottenham Pape Matar Sarr n'est que je également hein, il est au summum de sa carrière nous connaissons aussi un club pour le temps de jeu d'abord du côté de euh, Tottenham Tottenham ngeen gis ni na gars yi moo nekk maillot euh, bu waa France maillot d'entraînement bu waa France

Je dafa nar à bàyyi du janvier 2023 mom nak waxon na ne faire yéenewul bàyyi benn yoon tant que mi ngi am wergu yaram et confiance day wéy di nek président ki nga xam également nak moom mooy Didier Deschamps moom aussi ci problème la nek parce que actuellement blessure yi bari na forfait yi bari na ah. donc ki di Paul Pogba déjà dafa blessé Ngolo Kanté dafa blessé Lucas euh, donc Hernandez blessé Pavard aussi incertain donc blessure yi dal bari na du côté de euh, l'équipe de France ki nga xam également moy Carlo Ancelotti mom actuellement dañ ko laajoon ci Kylian Mbappé ndax soxla ngeen ko mu actuellement man loolu ba nga ko waxee damay wàcce samay loxo quoi ndax fini suñu équipe bi équipe bu baax la du fàttali rek également sur 17 matchs euh, avec un club allemand donc ñi di wa euh, di euh, Real yoon bu victoire match nul la am kii deen N'Golo compte également waa deux ans de contrat lañ proposé moom mu pour l'instant instant jubagut ak N'Golo compte bi euh, fille du juin 2023 bi a été libre de tout contrat Ligue des champions également Bayern Dominique Munich moo jiitu ci ah, Barça ak ki nga également moom mooy Inter de Milan Barça 6, plutôt Bayern 6 points Barça ak euh, Inter am ku trois points nga am ci jongante yooyu moy euh, donc jongante yi nga xam mujjena am diggante Barça ak Bayern Dominique ngeen gis ko ah, donc jongante yi am ni yëpp Barça daal euh, dafa melni mënul dara ci Bayern Dominique Bayern Dominique dal mokoy door ay score yu mag mag minimum 2-0 lako Bayern di daal di dóor tey nak nag bi nga xam dem lañ doon jouer ki di Mathys Tel ak également ki di euh, donc mu tuuti Serge Gnabry ñom dañoo continuer woy tay dem entraînement ñom ñi nga xam nak ci blessure la surtout Serge Gnabry blessure la jóge ak loxom bi et tout mom dem jouer na ah, mais tay yi nekkul ci forme Serge Gnabry Manchester également dem dugal remplacement remplaçant plutôt Qui dit Marseille Marseille également fumigène Ingus ñu gis démb ak yooyu noonu ñu jàpp ne UEFA da leen di daan defal match à huis clos ci Ligue des champions bi wala bokk ci benn compétition en tout cas daal. Marseille loolu David Silva euh, l'une des légendes vivantes également de Manchester City mon cool Aguero mon nak euh, dafa demoon fa nga donc euh, Manchester City daal di et ancien coéquipier coéquipiers ancien entraîneur am Pep Guardiola Guardiola mi nga xam indi foofu noonu ah, plutôt prolongé ba mu naree woon njëkk a dem kii nag ah, du mauvaise nouvelle mooy Youssouf Sabaly Youssouf Sabaly n'a pas été Séville ñoo génne communiqué mais il sera indisponible pour les deux prochains matchs donc également ce qui veut dire que Youssouf Sabaly est quasi forfait pour le match du Sénégal contre euh, également Nidiwa, Bolivie Agua, Iran Ali Cissé maintenant devra faire un choix fort kan lay est-ce que day euh, plutôt miser sur expertise locale ou également Moutarou Balde, ou un certain Noah Fadiga on ne sait pas mais ce qui est sûr actuellement dans le yi le Sénégal amna na jogante yoo mi ngi koy xaar contre Équateur en attendant bien entendu ñu xol Équateur nan lay mujjé ak li nga xam moy décision bi FIFA euh, jël pour loolu nak Sénégal ñaari match lay baajal muy Bolivie bi nga xam mom presque presque profil boobu la am ak également ñi di wa euh, donc Iran donc ki di Noah Fadiga il peut être hein, peut être que Aliou Cissé à la dernière minute il peut l'appeler. étant donné que Noah dafa blessé woon mais match bi passé contre Paris Saint-Germain joué il a fait un match très correct mom sax mo provoqué penalty bi on espère que également Aliou Cissé peut être. Euh, Dinoco wo et ce sera au grand bonheur du Sénégal, euh, du joueur et aussi de son père parce que Fatene, Fadiga, c'est le fils de Khalilou Fadiga. Guys, c'était les informations que je voulais vous donner. Bonne guise guise am avec le forfait de Youssouf Savali. Sénégal, temps, Hélène Dalmoum, Sedoul Dara. Hélène like, Hélène abonné.